rồi nhặt kẻ gieo đi nhô luôn đây là hà lệ đi nhau lên à sông vô tên à chỉ ghé đi nhau lên à sông vô tên à chờ đi nhau lên à sông vô tên à bạn ra kia Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn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

أعوذ بالله من الشيطان والسلام والسلام والسلام على المرسلين لله رب العالمين. lii ngeen di en tant que Thiessois et responsable de Thiès lu ñu nam la lu ñu bëgg la parce que Thiès a été trop martyr martyr pendant longtemps ah ci fànn yu bari yoo xam ne duñ ci egg wante fii ñu tollu tembe bu ñu fàttalikoo ni l'islam lu yàgg-yàgg nekk na fanweeri nit ak juróom-ñeent ñuy nëbbu julli yeneent bi di ñaan di ñaan boroomu Omar ex ñu leen génn leen ñu ñeen fukki nit yàlla nañu bokk ci lu deme noonu ñëw bii nga ñëw di jigéen it na jig mouvement bi jig Cees Cees soxla na ko lool lool lool ah parce que li ñu nekkee martyr buñ ko dalee nii ci politique yi nee yàgg na yàgg na booy jël ba avant Senghor sax da cee nekk ba ci Senghor ak lépp Thiès a été martyr parce que Thiès waroon na dépassé lii yàlla na ngeen nekk nag équipe bi nga xam ne yéen a koy avancé bi jaay Sidi bu jot sallallahu alayhi wa ah ma ñu ngi lay souhaiter la bienvenue di lay ñaanal yàlla ak yonent bi li nga ki lay tànn teg na fii xam na li mu def xam na li mu def donc ñun du ñu lu mandu di dékku di xaar et lu dikk jóge ci institution plus bi ñu mën ko accompagner allahuma salli ala sidi muhammad wa asalaamaaleykum ñaareelu yoon eh, xam naa wax ji day mel ni bu ñu sukkandikoo ci li délégué di quartier wax ci tumuranke koo xam ne gii Thiès da ko tumuranke ci wàlli jóge ci kuuci jëm ci njaboot yi ah tabaarakallahu loolu moom ñu ngi ko ciy dëggal bu baax ndax lu ñu lu ñu fekke ak may na lu fekke lu bari waaw waaw fekk lu jiitu Senghor ak Senghor ñu fi jaar yëpp fa tabarakallah ah waaye ñuy ñaan yàlla rek ni mu ko waxee rek yàlla na loolu itam rek sotteeku ci équipe bu bees bi nga xam ne fa tabarakallah ñoo taxaw ànd ko premier bi te fas yéene dafa dund ah nag wàllu bi ñu féete nag mooy wàllu diine ji jàkk yi wax dëgg yàlla barakalla xam naa ñu ngi ciy def waaye nag ah, jàkk moom da du liggéey ba du jeex waaw maa ngi ci jàkk fa tabarakalla ah daara yi itam fa tabarakalla yooyu daal ñun daal bëgg ñu ci bu baax waaw waaw xoolaat wàllu jàkk yi ndax si ëpp na tax ci taxawaay la waaye nañu gën ko dolliwaat ak wàllu daara yooyu loolu daal ñun mooy suñu yitte ah yow noo ko bokk ñun ko ko bokk nag kon yal yàlla dimbali daal ba dëkk bi daal lépp lu ñu doon jooytu daal ci wàllu réew ci wàllu dëkk bi yal na yàlla dogal équipe bii taxaw fa tubaarkàlla fajal ñu su jëm jàqare ñoo ngi nuy kenn ku ci ne ci turam ak santam di nuyu nag suñu papa yi ñu fi fekk di papa Souleymane Gueye kenn ku ci ne ci tur ak sa sant di la jox sa wàccuwaay di wax ministre bi ni ko dalal ak jàmm sunu xel dafa dal lool ndax nag dañoo liggéey ak yow bi nga paree su la neexoon toog ci sa bureau mais dangaa ñëw wàcc ni dinaa fi ñëw gis nga lii nga def soo defaatul dara kontaan nañu ndax nag nit ku ko yëg rek deseelooto ko dara ndax dañoo def consultation gratuite dangaa ñëw ni yaasin loo leen bëgg ñun sante lañu xam mu ni la dama bëgg nga defal ñu euh, consultation nga def ko na mu ko bëggee ñu jàpp ci nga pare mënoon nga ñu ne ah tee ngeen a ñëw ngeen seet si ma Dakar mais dangaa wàccal sa bopp kon wane nga ni yow li la président liggéeyloo fas yéene nga cee def dara fas yéene nañ laa it nag jàppale te sunu kàddu lañu am te sunu papa yi toog xam nañ leen ndax jiite nañ ñu ci ci tariixa bi jiite nañ ñu Cees xam nañu seen kàddu te comme ñëw nañu toog ñun am nañu ci yow yaakaar gis nga ministre gii nga nekk yàlla na nga dem ba nekk premier ministre ndax nag gis nga nit ku am kàddu lu fu nekk mën na faa egg keroog ba nga ñëwee fii dañoo wax ak yow wax la suñuy doléance ñun dañuy liggéey dañ mais nag dañoo boot ay mbooloo nag dangaa am leneen looy doxi mm-hmm. mais ñoo ngi ñaan yàlla mission bii la président jox yàlla na nga njëkk ci ministre yi nga xam ne ñoom la président di taxaw gërëm leen ba dëkk bépp dégg ko wasalaam dama bëggoon présidente coordinatrice bi mu sànni ci ay kàddu ak sa beneen euh, collaborateur boo xam ne commerçant la dëgg maa ngi jéggalu di rafetlu tamit euh, toogaay bi waaw comme ni ñu ko waxee rek madame Assome Anbata Diar boo gisee ma jàppale ko parce que ma dama koo gëm parce que man fay saa fànn mais dama koo gëm parce que maa xam ne liggéeykat la te moom ba mu ñëwee lan la wax liggéey laa bëgg jàppoo ak Assome kon jàppal ma jàpp aw ma xaalis may may mais dama bëgg nit ñi liggéey nga xam ne ku doon euh, ki nga xam ne day ñaan jël ñu jàngal ko nu muy nappe nga xam ne bu subaa dootu mënatee ñaan jël loolu moo xam ma gis ne kii liggéeykat la moo tax ma jàppale ko yàlla def na ko nag mu nekk ministre mu ngi soogay toog kon na nañ ko ñaanal laat xalal ko gor la ah. parce que nu ko ndey booy waxee mënoon naa toog fee woo ma te man su ma woowee damay am jot mu am nga man ma gàntal ko parce que man lu nit ñun ku ñu yëg rek lañ bëgg man boo ma yëgee rek yaa ma moom mais daf ne Aïcha Assane dama ne yaa si asam day ñëw ba foofu ma ne ko est-ce que dina am temps bi parce que moom dafa dugg rek ku ne gis nga comme kii yi boulangerie yi jóg jaay ko solo jóg ñëpp jóg mais loolu c'est Sénégal mais mu fexe ba gérer ko ba régler ko moo ngi nii lépp jërëge na ko te yaakaar naa bal tàkkul dara tàkkul ñëpp kontaan kon nag kii médiatrice la moo tax ma jàpp di ci rey sama bopp médiatrice la du ma jàpp mais moom lu muy def moo tax ma jàpp kon nag damay ñaan ñu fi nekk ñëpp mbootaay yaa ngi fi GIE yaa ngi dama la ñaan ñun tamit lan lay xaar ñu jàppale ko accompagner parce que bu jiitoo topp si ginnaaw gestu gis ñu kon du tiitaan kon nag ñun ñoo koy jàppale di ko pousse muy dem loolu rek laa bëggoon am parce que temps bi dafa gàtt te kilifa yi dañoo bëgg ki di jéggalu di baalu am. fii ci Thiès waaye nag euh, balaa may ñëw il faut ma nuyu kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fi toog nuyu le délégué de quartier et l'imam qui est la présent euh, di nuyu madame la présidente di nuyu aussi GIE yi fi teew yëpp taxaw te ñoom ñëpp dara yëkkatiwuñ leen lu dul ñu jàppale la. di nuyu doyen yi fi nekk tàmbalee ko ci Pape Maguette Gueye ak doyen yi fi nekk ñoo fi nekk ndowoon démb di réunir mm-hmm. vraiment ñoom ñëpp di leen sant waaye nag balaa may wax dara ki may njëkk sant mooy madame Keita mm-hmm. parce que dama nekk ak moom hôpital régional moi je suis dans le conseil d'administration comme tu le mm-hmm. connais mais avant tout ça je suis le président de l'INCS que tu connais bien mais liggéey bi mu liggéey ci sa ginnaaw dafa am solo parce que nit bu lay représenter na nekk nit ku woyof nit ku mën a jaxasoog nit ñi te yàlla def na mu nekk nit ku woyof man na jaxasoog nit ñi te itam yàlla def na nit ku nite la kon alors euh, nit ku baax la madame Keita je pense que mouvement bi am naa yaakaar ci moom ne dina am fu mu ko yóbbu ndax bu ma jógee man fekk si ko wax naa ko fii démb nee naa leen man sama wólëre ak madame le ministre démb la parce que dañu liggéeyandoo ma jiite mouvement UNCS union nationale des consommateurs ñu di ko fii chef de service du commerce ma ànd ak moom di liggéey. xamul sax problème politique bu ci duggee bi mu duggee direction di commerce Macky Sall nommé ko direction commerce euh, extérieur ci la dugg ci wàllu politique seeti naa ko ay yoon direction alors xamante nañ bu baax xam naa alors li mu man vraiment te ku ko jàppale incha allahu rabbi day dem te dina dem incha allahu rabbi wax naa leen ku dem te kenn du ko regretté incha allahu rabbi kon ñu ngi lay ñaanal vraiment li nga bëgg a liggéey Thiès xam nañ ni d'origine Casamance waaye nag Thiès day sa dëkk. ndax bi ngay tabax sa kër waajur xam naa ko bari na lu ma ci dox ay Aïcha ngi nii yow xam nga man xam naa donc xam naa fonk gi nga fonk Thiès ak bëgg gi nga bëgg Thiès te wóor na ma ne di nga jàppale euh, jigéen ñi nga xam ne ñoo fi nekk te ñu di ay battante ñu ci bari ma xàmmee leen xam leen xam naa ne di nga leen jàppale te xam naa ne alors ñoom wax naa leen ko démb bu ngeen ànd ak asum du ngeen ko réccu mukk rawatina ki leen jiite kon nag ñu ngi lay ñaanal ba mission bi nga xam ne alors président Macky Sall moo ko dénk yàlla na ko réussir à 100 pour cent billahi laa ilaha illa man ko na façon nekk nit keroog bi ñu la falee nit sax dafa ma woo téléphone directement maire yaa ñaa noonu de man ko dogal nag am naa dogal yàlla ñu ngi lay ñaan yàlla yàlla egg yàlla c'est une du pluriel qui vont avec le mât, c'est vrai. Euh, il se trouve que d'une, maintenant, on est aussi dans le fort, comme ça, nous l'avons dit avec les clients. Je suis un ancien marin. J'ai été formé au niveau technique de la poste. Euh, J'ai fait pratiquement euh, mes diplômes supérieurs en Pologne. Donc, le grand blanc l'a dit. comme je me suis mobilisé dans un parti dans une

defe naa dinañ ko mën a yóbbu fu soree soree soree incha allah waaw dëgg la man citoyen Thiès la à part entière ndax boo dëkkee Thiès depuis dix ans daanaka kenn ëppalewu la donte mën nga nekk originaire de la Casamance ak yooyu man yàlla daf maa nattoo ma bokk fu bare ndax da ngay originaire bi ñëw na ñëw di militaire di Ziguinchor jóge fa dëkk Kër Massar di liggéey Kër Massar donc yëpp yi ñëpp a ko bokk xam naa lu ñu fiy jot a wax comme ay idée dafay baax ñu toog toogaay bu gën a yaatu xamante ni nañ ci liggéey te li ngeen fi jot a yëkkati sax déjà boo ko xoolee dem na euh, bokk na ci li nga xamante ne si wàllum ministère bi ñu ma dënk ci mission ministère bi la bokk donc yéen dafay mel ni da ngeen ñuy gën a jàppale sax ci wàllum liggéeyu ministère bi hmm. donc looloo tax ñu gën cee sawar bu baax a baax a baax emploi

yaa am yéene jàppale say waajur donc looloo tax vraiment ñu nekk ay cible président de la république donc li ngeen fi wax yëpp man bàyyi naa ko xel dinañ ci liggéey li monsieur Keita wax aussi dinañ ci bàyyi xel bu baax ndax bokk na ci secteur yi nga xamante ne loolu tamit xaw na laal suñu liggéey parce que loolu bokk na ci lu ñu naan les secteurs des services sportifs donc te mu nekk lu am solo tamit Euh, man comme ni ma koy waxee euh, mënuma ne mën naa indi les solutions à tout mais mën nañ ci liggéey ñun ñëpp ku ci nekk rek nga indi sa xel indi sa xalaat ak dox si sa si dox si sa sa sa warugar bu ko defee incha allah dinañ teel àgg fi ñu jëm te bu boobaa day nekk njëriñ pour ñun waaye dinañu siggil bu baax a baax ci wetu président de la république son excellence Macky dañu comprendre ko noonu ngeen baal ma encore ak si toogaay bu yàgg bi euh, encore une fois xaw ni woon toogaay bi nii la toll bu beneen yoonatee ñu ñu gën a yaatal waxtaan bi. asalaamaaleykum man la Yacine Keita nekk euh, sage-femme de formation mais léegi technicien supérieur euh, en biologie à l'hôpital régional de Thiès. mouvement jàppoo ak Assoum nag parce que man maa ngi je faisais partie des membres des amis de Marème Faye Sall encore gëm ko nag ba léegi. waaw mais ba ma gisee Aïcha ki temps élection yi mu ne moom tamit magam day jàppale le président Macky Sall ma ne ko kon réew mën nañoo def mais ma xam ne as euh, Aïcha à elle ak asom day kii ma ne ko man léegi dinaa fexe responsable yi ma jëloon ci ma fay Sall naa ko wàññi ñëw ñu créer suñu mouvement jàppoo ak asom parce que comme asom day jàppale monsieur le président kon tamit benn dafa ñëw pour woowee fa ma liggéey si lañ créer mouvement jàppoo ak asom niveau de Thiès. jàppoo ak asom jàppoo asom mooy lan da ngay jàpp ma jàpp parce que asom dafa nekk koo xam ne bañ toogee lan la ma njëkk a wax yaasa man aw ma xaalis ma mais leen laa gëm liggéey liggéey nga jàpp ma jàpp ñëpp liggéey ñëpp euh, gis ci seen bopp ma ne ko man loolu laa gëm parce que man bu ma ci jàppee man maa ngi ak sama salaire kon damay jàppale euh, doomu aadama jigéen ñi ak jeunes yi nga xam ne ñoo nekk au niveau de Thiès pour ñu mën a liggéey gis seen bopp damay jàpp nga jàpp bu yàggee mbooloo mooy doole te yaakaar naa booloo lu mu song rek dina ko mën loolu moo tax ñu dugg si mouvement jàppoo ak asom ñu njëkkee ko nag fii fi ñetti kàdd bañ ciy nekk ak coonaa bëtuñu sax fukki nit temps élection yi ñu ciy dem di def ay ville de def ay porte à ñëpp xam mouvement jàppoo ak asom fan la ñu war a yóbbu yàlla def ñu nekk ci dikki dikki ba nit ñi ñu am ci ñu dem

président def bureau ñu ñu bokk ci ci nit Saphir Mbaye ñu ki asom nek ministre du commerce kon nak suñu ministre ñu ñëpp moo tax tey jii mu ñëw delo suñu kër base bi ñu rafetlu ko hein parce que fàttewul dem bu fàttewul démb mun naa tok fe te man suma woy amna am naa fula mu naan ñëw

ñëpp liggéey góor liggéey jigéen liggéey ñëpp mun a liggéey bu ko defee Sénégal fii ñu nekk ñu mun ko yóbbu fu sori mu siège pour le moment dañ na fii la ci kër gi à ñetti gàdd mais euh, mun na contacter 77 416 54 81 pour le moment bu ko defee suñu bureau bi 77 cent 416 54 81 pour le moment bureau baa ñett moo ngi ñetti gardé mais xam naa ak bureau bees bi ñu formé dinañ gën a xool am benn numéro fixe boo xam ne day mun a fonctionner 24 heures sur 24 heures.